portable nekk ci kanam ci kanam mais fii dafa bële yow nii nga ko doon jaaree fii xool lu mel xoolal xoolal mu ngi nekk ne ci gis benn ci kanam waaw dama maa ngi siiw bi dama loolu soxla na li ma gën a yàq. voie bi voie bi boo ko sama téléphone daa nga dem defar quoi même ma jël quoi. waaw téléphone. maanaam bal bi nii. yaa ma bi. waaw bii la. yow yaa dem téye micro yi wala. waaw xaaral xaaral ba jamono sax. vont s'asseoir dans deux minutes et nous allons démarrer. waaw waaw

wàcc na seen portable yi bokk. Et am mbégte bu rëy rëy rëy rëy ci teewaat fii jàkkaarloog jëm yi ñu jàkkaarloog waaye mën a sànni ay kàddu wax ak mboolem seen àdduna rawatina peuple sénégalais yépp laataa ñuy sori ci wax ji dinañu delluwaat ñaanal bi nga xam ne seen bakkan rot na ci xeex bi nga xam ne moom la sumb ñun ñëpp te jubluwuñu si lu luy defar suñu réew ba faw luy defar Afrique ba ma faral di wax ni ci sama gis-gis bu gàtt duma xutbu duma boroom xam-xam waaye jàpp naa ni ñi seen bakkan rot ci anam bu mel noonu mën nañ leen boole ci ñi nga xam ne dañu ni wooye ak shuhadaa mooy ñi nga xam ne dañoo tegoon seen tànk ci dëgg di xeex ngir dëgg ba leen ciy fekk fekk leen ci lu nag ñu ngi yokk ñaan yal na leen yàlla yërëm te jéggal leen yal yàlla defal leen ci këru barzak yu yaatu yi di masawu ñi ci gaañu it ndax bëri na di ma sew ñi ci tëddoon ci kaso bi léeg ci condition yoo xam ne yu xaw a métti la di nuyu peuple sénégalais bi yëpp wax nag ni wax ji mën na gudd mën naa ko a gudd ndax dama namoon gaa yi waaye dinañu dinañu fexe ba tënk ko ndax jamono yi toll li ëpp ci wax mooy waxu suñu candidat le président Diomaye Faye na wax ji mën naa bañ a gudd parce que nous avons une élection à gagner et chaque heure compte on a déjà perdu trop de temps moo tax ñu koy essayer tënk rek ci ñaar wala ñetti anam balaa may dugg ci yooyu dinaa delluwaat remercier ñi nga xam ne ñëpp bàyyi nañ seen yitte yoroon seen kuréel moo xam parti la wala mouvement wala personnalité la individuelle ñëw jàpp ci coalition Diomaye président te boobu jamono gisantewuñu sax ak Diomaye tooguñu ak moom di leen wax dal leen ak jàmm ndax ñun jaayuñu sénégalais yi nit projet lañ jaayi sénégalais yi. kon su ngeen ñëwee ci projet ngeen ñëw seen projet la di ci beral loxo nag suñu yeneen ñaari candidat yoo xam ne suñuy nawle lañu ñëpp xam ko suñu digganteer weesu na partenariat muy la doyen Habib Sy mi toog fii ak le docteur Cheikh Tidiane Dièye te conseil constitutionnel li mu def da koo def sur commande li ci nekk yépp xam nañ ko donc su amoon kenn ku war a conseil contesté man lay doon waaye def moo ko parce que li ñuy teeloon mooy nañu fexe ba projet bi placé ay candidats te projet bi am na ko moo tax ma profité ci woo Sénégal yëpp ñu ànd ak tey ak dal ndax bu dee conseil constitutionnel dafa jël ñaar wala ñetti décision ci fan yi ñëpp tëb ne conseil constitutionnel conseil constitutionnel te ci gannaaw ba ñu xam ni am na leneen lu ci laxasu yenn saay ëllëg bu bu defee leneen ci résultat élection yi mënuñu dellu si ne conseil constitutionnel nañ ci ànd ak tey ak dal d'autant que nag am na ay rumeur yu am amaguñ ci ay preuve buñ ko amoon moom man bokk naat ci yu njëkk ñëw taxaw ne lii mënul dem waaye dégg ngeen ay rumeur corruption lañu ñu ci déggagum ci ay début preuve matul preuve moo tax ma ne nañu dal su conseil constitutionnel defee yoon dafa def liggéeyam jarul jaajëf waaye comme tàmmaloon nañu def safaan wa tamit nañu moytu di gaawantu di jiital émotion li ñu war a demander tey conseil constitutionnel te di ko demander président Macky Sall ndax il peut encore rendre service à ce pays. ndax ki mu defoon candidat am te bëggatu ko ñépp xam nañ ni ay pexem weesu na foo ko mën a natt koo xam ne nekk nekkagoo président de la république waaye fexe nga ba wiiri ba gasal président kamb ba tey état bi yépp tegu sa loxo te lépp ay malet rek ko moo ko lal xam ngeen ni kooku ku xeeb ay pexem ñun ñi ko xam ne nekkoon ak moom xewuñu ko kon nañu gën a tàkk suñu digg te xam ni élection bi bu jaaree yoon gëw ma ni mun nañu def moins de 60 pour cent incha allah waaye buñ jàpp ni c'est gagné d'avance moo tax nañu gën a fagaru na ndaw ñi dem jëli seen carte électeur topp ci caravane yi di daw baax na waaye munition bi mooy carte électeur ne ñëpp jëli seen carte électorale ndaw ñeeg mag ñi la ñu yàgg a def te mu jig ñu mooy dem voter massivement mais sécuriser le vote également te loolu ndaw ñi rek ko ko mën ba pare toog aux alentours des bureaux de vote yendu fa ba ngoon ku ñëw bu nga def naka sa noonu ngeen digaale koog moom ba ñu dépouiller ba signer PV yi ba envoyé quartier général ñëpp am seen i loolu nañ ko daan defee nañ ko def lu ko ëppee ren parce que élection yi enjeu bi bokkul ak benn enjeu waaye it ñu continuer am exigence ci ñi nga xam ne ñoo war a organiser élection bi moo tax may wax président Macky Sall que bu ñu génnee ci élection bi affaire bi jaxasoo demam du yomb foo mu xam ko. moom xam na ay pexe ex candidat waaye su dee bëgg na rendre un dernier service à ce pays pour demim deminam tane na fexe ba élection yi doon élection yu mucc ay leer nañ ki gaje ñu ne kii la ñëpp ànd félicité ko ñu xam ni lii la yàlla tudd kon dama wax ni loolu parenthèse la woon li jiitu élection yi si amee ku waroon contesté man nii la mais yàlla may nañu président Diomaye jàll may ñu président Habib si jàll may ñu président Cheikh Tidiane Dièye jàll kon sama jëm amatul solo du dul ñëw jàpp ci ñu dox ñu ne ah élection yi xaw naa jaxasoo reporté nañu coow li bëri tey may dalal xelu ñëpp nii fa ñu woon amul lu ñu ëmp ci réew mi léegi daal xale yi ne il faut ñu nettali ma lu bëree bëree bëri classement coupe d'Afrique beeg ak yeneen ak yeneen lépp yëg nañu. kon xamoon nañu la xew ci dëkk bi di ko suivre comme ñëpp ca loolu ñu doon suivre dëkk bi jaxasoon na yéen ñëpp dégg ngeen ay waxtaan yu am naam waxtaan yu bari am na ay ndaw yu bari yónni na leen ñu ñëw ci ñun wax ndax mënu woon ñàkk damay wax ni Pastef dañu am jamono ju ñu toll boo xam ne kàmm dafa am walla dafa am benn écart diggante ñun ñi nga xam ne yàlla na nattuwoon nañu ñu jiite ko ak li ëpp suñuy militant te communication jafe woon ba mënuñoo jottali li ñu bëgg waaye ku am seetlu tuuti di nga xam ni à partir de du mois de mars deux mille vingt trois am na lu bëri lu soppiku ci stratégie Pastef parce que projet boo ko yoree projet de société da ngay évoluer ak moom bu ma koy tënk ci lu gàtt rek te di jël ci diine gi ma gën a xam dama naan am na Màkka am Madina am Hudaybiya am Fathu Màkka am lu tegu ci fatxu Makka jamono jii nag ñi ngi ci mujjanteelu Hudaybiya ndax xam ngeen Hudaybiya jamono jii Makka fitna la woon ba tax mënatul nekk ñu gàddaay dem Madina Madina métti na woon ci xeer yi xare yi am yépp ci Madina la amee ba waxtaan am keroog ci Xudaybiya yonent bi alayhi salaam takk ay jëlee ba fasam ne namm naa Madina namm naa Makka dañuy aji ñëw ba tiim Makka ba di gis les premiers bâtiments ci benn gox bu ñuy wax Xudaybiya yéefar yi takk arme ne su ngeen duggee ñu faagaagal leen mu nangu signé pacte boo xam ne moo ko jural dix ans dakal bi mu defaru ci defar ci armée defar ci société ba keroog bi mu jubloo ci Màkka mu ngi woon ci jiite armée bu mat 10 000 personnes te guerre amul fi mu ne nii nag guerre du am bu soobee yàlla ndax élection bii du doon guerre. des nag élection bii di fàttu Màkka bu soobee yàlla buñ ci pare muy nu ñuy gérer ñaar yooyu ñu dese étape yooyu lañ toll. léeg-léeg nga dégg ñu ne dinañu fayu dinañ dóore dinañu lii déedéet il pas de vengeance il de la justice parce que loolu lañ ñu jàngal dafa am loo xam ne boo ci boo ci nekkee rek mënoo def lu jàpp néew ñu nag ni impunité totale dina am waaye kii defoon na ma lii faw ma fayu du fi am bu ñu yàlla joxee réew mi mbokk yi est-ce que xam ngeen li ñuy xaar li ñuy xaar xamagu leen ko de li ñuy xaar jaxasoo na rëy na bëri na te population yi toppuñu di daw ci mbedd mi elles seront très exigeantes avec nous tey ñu am bor yu ñu war a fay mooy ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci ñi nga xam ne ñàkk nañ ci cër ñi nga xam ne def nañu ay at ci kaso bi ñooñu ñëpp dañ leen war a fay bor bi te naka lañ leen koy fayee mooy fexe ba gëm-gëm gi ñu amoon ci ñun bu buñ ci mus a teggi suñu tànk lu toll ni tarafataayu kon waxtaan am na ay ndaw ñëw nañ ma gis waxtaan yi ci ñetti poñ la amul benn bu ñu déggoo nag waaye def nañ ko ci respect mutuel te loolu amoon solo waxtaan nañu ci report élection may leen xalaatu leen ko élection bi mënu leen ko laal bañ ma ne il faut ñu reporter élection bi ndax yow ak diw di fa ngeen bokk ma leen sama bokku élection mënul justifier report élection sama bopp mu ni senegal ba mu daj am na ku ma gën a mérité nekk candidat man nii. wallaay. waaye nit ak sa yéene yàlla ak dogalam. Mhm. ku ko xamul rek da ngay sonn. bontu bi présidente xam nga la ñuy wax madame yéen ñi dégg anglais loolu yàlla bind ko ci jëw kenn saa su jotee rek di ko def kon. lu ñu mën def pour élection bi ñu bañ ko reporter def nañ dem naa ba ne samay avocat bu leen déposer recours mooy rabat bi tant que figé wuñu liste yi ndax damay bañ ñu jax jaar ci loolu pour mën a reporter keroog bu ñu nee déposé nañu loi assemblée wala dañuy def commission d'enquête parlementaire ci laa woo Birame Souleye nii ne ko non seulement suñuy député dañu voté contre ne nañu attaqué devant le conseil constitutionnel bi ñu génnee liste yi laa jokkoog doyen Habib Sy mii ne ko doyen li ma dégg ci rumeur mooy dañoo bëgg a reporter te fi ñu ko bëgg a jaaree xam naa dama bëgg nga wootee anciens amis du PDS nga ne leen bu ñu nangu mukk ñu jaar ci ñoom pour reporter élection yi doyen. woo leen nga wax ak ñoom 24 heures plus mu waa mu jox ko man ne ma wax naa ak ñoom lii lañ ma wax ba keroog barki démb bi ma taalee télé dégg ñu ne doyen Habib Sy dafa bëgg a déposer recours ci laa ko wane ko doyen bul déposer recours parce que bëgguma ñu jaar foofu peut-être ñële mun nañ ne amuñu qualité à agir mais yow candidat boo déposé ñu ne tu as qualité à agir kon bul déposer recours ñañ doon yónni ci man ñuy wax ak man dem naa ba ne leen ne leen seen kilifa bu mu démissionné mukk ndax li ma jàppoon man ci constitution mooy suñu démissionné article 31 deuxième alinéa mooy ñëw mooy ñu ngi ci kaw suppléance te boobaa dañuy rebattre carte yi kon bu ngeen gisee may leeral yi mooy wax ji bëri na Sénégal nag moo ni demee wax ci bëri na da gis ku la xamoon bu baax xam yaay kan mais situation taxaw mu mun a dute ci yow loolu mooy Sénégal nit nag boo ko wóoloo da ngay def ni Aboubacar defoon biñ ko ne sa waa ji nee na dafa dem démb rañaani saa ba yëpp commencé dute moom dafa su dee moo ko wax dëgg la waaye nit booy wóolu tant que yaa koy gis ñàkk koo gis mu ne jaaral nii nga ne non non kooku dafay juum li mu wax tegu ko fenn te ñu jaar ba egsi fii li wax ni am na écart bu am suñu diggante et c'est tout à normal mooy Pastef dañ koo song pendant longtemps mu nekkoon ci position défensive ba ñu gis woon lu dul xeex ak ko bu ñu continué woon ci fànn boobu kon Bassirou Diomaye Faye nii tey du nekk candidat j'ai dû prendre beaucoup de décisions et je les ai prises parce que mun ma woon jox ko kenn bu ma ci jumoon ci benn rek projet bi tey jeex na may sant yàlla c'était pas évident dañuy sant yàlla te juumuñu ci benn defe na kon toll nañu foo xam ne il faut ñuy gis les deux faces de la pièce toll nañu foo xam ne ñenn ñi élection rek lañu gisoon élection élection élection ma leen waaw dinañ dem élection bu soobee yàlla waaye dañ ñoo song métital ñu nanguñu lu bëri si ñun lu mu mën a def ba delloo si ñu moomoon rek dinaa ko def tey delloo suñu parti politique ñu doon wax ex Pastef ex Pastef léegi dinañ ne Pastef dellu si na wala dellu si tey delloosi wuñu suñuy éligibilité ba ci sama bos man nii te am nañu taxaw ba ci opposition bi ne d'ici 2039 Sonko du nekk candidat yàlla ne samay mbir noppi naa ci bu yàgg waaye tey génnewuñu des centaines et des centaines de nos frères et sœurs qui souffrent dans les rues ñi wax nañu toog bu ñu gagné qu'est-ce qui vous garantit qu'est-ce qui dinañu gañe waaw par extraordinaire suñu gañewul xam ngeen ni ku fi njëkk a toog la may njëkk def mooy liggéey bii gars yi su mboon mu yeggali ko kon Mbac Basirou mii 10 ans la jël parti bi ñu seeyal ko projet bi jeex loolu yëpp parce que on voulait faire un fétichisme des élections j'ai dit non dinañu dem ci élection bi soobee yàlla. peut-être ñu wax loolu xamuñu man de prison bi man ne woon suite lañ ma ko jox suite chambre salon double climatiseur télévision ñi fa ñëw gis nañu ma am sama gandim këru 300 mètres carrés di doxantu teg fa sama vélo di pédale waaye est-ce que xam ngeen ni président Diomaye bi pendant 11 ans 11 mois 9 mètres carrés woon ñu boole ko yeneen ñaari nit xam ngeen condition yi mu nekkee woon jooyu ko fenn mais est-ce que est-ce que xam ngeen ni li ëpp ci suñuy xale yi ñu ngi woon ci condition yoo xam ne kenn kuñ fi tegoon ci condition yi boo matul du génn ci prison bi suñu responsabilité en tant que autorité morale mooy suñu amoon prof ndoll génne ñooñu te yàqul dara ci li ñuy liggéey dinañ ko def moo tax nit bu àndeek moom léeg-léeg koy wóolu doylu ko buy def xamoo teyal ba xam rek loi d'amnistie bi coow bu ne dégg nañ ko ci muy deuxième poñ boo xam ne discuté nañ ci dañu ñëw wax ma loi d'amnistie may leen soxlawu ma loi d'amnistie su leen doyee vous abandonnez les charges parce que xam ngeen ni taxawul ñu def non-lieu nit ñi ñibbi seen ah ñu ne dee rek ñoom loi d'amnistie la ñu bëgg suñ defee loi d'amnistie ça nous waaye instruction bi ma jox suñuy député mooy bu ñu àndee loi d'amnistie bi interpellé leen ministre de la justice bu dee léeg-léeg di bokk na ci voté non bu dee léeg-léeg di bokk ci voté oui keroog bi ngeen dajee ci suba balaa ngeen tig su lay message boobu la délivré suñuy député pourtant dégg naa ci lu ñëw nañu réponse bi leerul voté nañu non teewul loi ba jàll moo ñu andi fii ñu nekk nii tey jàkkaarloog sénégalais di wax ak yéen kon dafa am loo xam ne dox na ci stratégie te ñu bëri xamuñu ko te merew ma ci kenn ndax fa ñu bàyyi woon pas parti bi ba ñuy jàpp peut-être ñoom foofu la ñu toll ba léegi fekk ci gis-gis ak yeneen dafa évolué ñetteel bi ñu wax mooy dialogue loolu suñu position mu ci see changé dañu ne woon kenn du teg pistolet suñu bopp di ñu dialogue loo booba jamono pistolet la woon jamono jii nag bazooka waaw naka la ñuy demee dialogue parce que ñun ku ñu xam ci politique bu ñu commencé ba léegi constance nga ñu xamee gis ñu lu fees suñu bët moo tax nag bu ma leeralee yooyu yëpp di wax nii te li ma wax nii yëpp nag saa suñu ñëwaat ba ñu waxtaan ba noppi dama leen naan andil leen ma sama candidat ñu andil ma Bassirou dinañu toog 3 heures de temps 4 heures de temps te ñu faire compte rendu détaillé amul lenn lu ma mës def te waxuma ko. moo ko waxee ba noppi mu wax ma lu mu xalaat ñu tënk naka la ñuy doxalee da ca léegi nag weesu nañu loolu dañuy dellu sant yàlla ndax yàlla deseluñu dara de ëllëg bu ñu bindee suñu mémoire lu bari dinañ ko xam ndax xajul fii mbir mi moo raw film film ko boy xajul fii de waaye nañ ci yegg si ñu war a dëgg ma nag lu am solo muy élection bi mbokk yi élection bii dañ koy gagné incha allah. bis ni ki bu ñu jógee fii discours amatul futtiku ëllëg ñu nga bëgg a yeewoo jëy Ziguinchor bu soobee yàlla daal di commencé campagne bi may lancé appel nag Sénégalais yi xam nañ ni bëgg ngeen ñu lool xiif ngeen ñu lool waaye na ngeen ñu comprendre sept jours de campagne lépp xaju si. ñu leen koy ñaan rek ku ñu jaarul goxam bu mu mer ku ñu taxawul goxam romb rapidement bu mu mer parce que élection boo amee 20 jours sax mënoo def le Sénégal waxuma laa léegi ñu dese la 7 jours te ñu Dakar militants yi xamante nañu léeg-léeg nit ñi def ko affaire sama koñ sama dëkk léeg ñun gagné lañu ñu bëgg d'abord kon bu dee ay candidat ñoo mën a ñëw toog fii bàyyi seen lépp ñëw toog fii mënoon nañ ne man sama candidat bopp la maa kon kenn ku nekk na xam ni patriotisme bi ñuy wax fii la war a feeñee dina doon campagne bu méttee méttee métti caravane la ñu mën a def dañuy traversé rek waaye luñ ci mën def rek nañ ko ci def mais ñuy ñaan ñëpp li daan am ci mi ci campagne yi dañu war a jaar itinéraire bi pourquoi def ñu nii mer naa gedd naa li tax ñëwuñu sama dëkk li tax wàcc nuyu kilifa gi suñu amoon sañ sañ loolu lépp nañ ko def mais su mënul nekk rek lu mënul nekk rek nañu ko nangul te bu mu tax bu mu bu ñu gën a takk digg yi parce que avenir du Sénégal la du affaire u nit du affaire u koñ du affaire dëkk ñaareel bi mooy dama bëgg nit ñi bu ñu waxati sax lu jëm ci Macky Sall on se de combat Macky Sall bi mu nee man doot nekkatuma candidat la ñu moom du suñu adversaire waaye am na lu gën a garaaw fuuf mooy candidat wu Macky Sall Amadou Ba bu yàlla ñàkkee bëgg Sénégal dëgg dëgg dëgg rek na ko jox Amadou wallaahi yéen xam leen Amadou Sénégalais yi question bi ñu waroon posé wu rek mooy simple fonctionnaire nu mu mun a yor alal gi yépp loolu rek jar na bañ a woteel kooku maag moom ak kii ñoo bokk liggéey wax dëgg yàlla ñun amuñu dara wala am nañ tuuti waaw fan la milliard Amadou Ba ay jóge est-ce que Sénégal dañuy poser question boobu. kon loolu rek doy na ñu ne kii mënu war lu mën a nekk président réew. vous savez man bëgguma ñu dugg ci débat de personne dégg naa ñi naan dëkk sàngam la jógee du Sénégalais déedéet Sénégalais la fii la juddoo. jàngee fi am nationalité def fi tout sa toute sa classe du sénégalais rek gënuma koo nekk sénégalais tey ñëpp jóge ci dëkk yooyu gis nga Sénégal dëkku teranga la ñun ay panafricain lañu ay sénégalais yi ngi dund feneen ñeneen la ngi fii ku ñëw jaar fi mu war a jaar am kayitam sénégalais la ñun ñëpp bu ñu stigmatiser kenn complexe kenn loolu baaxul suñuy natt dañu wax kii est-ce que ay loxoom set na est-ce que bëgg na réew mi est am na compétence yi leen nag première question bi tontu naa ci ba noppi ñaareel mooy bis bu ñu ko joxee réew mi dénk nañu réew mi waa bitim réew xam nga ci samay série vidéo yi ma defoon am na yenn ñaari yu waroon génn waaye jaratu ko benn bi ci moom laa ko defoon ñi ko gis gis nañ ko benn bi ci moom laa ko defoon spécialement mu ngi wër nag di wax yor la meñam di wax nee na ñu ngi lay attaqué bukki nag bu yobee waxambaana Amadou Ba mu ñoo yab de ndax dañoo bokk di liggéey yàgg naa jël lu mu warul jël man a ko tegal ci suuf. la direction générale des impôts ma yor jàgg naa laal lu mu warul laal man vérifier naa te taxaw naa assemblée nationale interpellé ko ci li nga xam ne alalu réew mi la mu salfaañe ko ngir bëgg a neex tubaab yi kooku di ko jox réew balaa may dee ñu ne compétence compétence su la expérience expérience su la ndax alalu réew kon may lancer aussi un appel kilifa diine yi parce que gis ngeen li ñuy wër di nga di nga dem ci même ràngeen bi rek la ñuy dem ci kilifa diine yi waaw réew mi mi ngi en danger dañ ñoo rax ba ana ñan ñoo leen rax ñun ñi newoon ñun ñoo leen rax ñoom ñoo jekki-jekki mu mel ni xal bu nekk seen loxo ñu gi sànniñu ci biti ab terroriste di nga ko génne nii ana ñan ñoo ñu rax kii gëmul tarixa kii gëm wax waxu bi ci tey moom la ñu jël bu koo def ci joomaay manipulation bi dafa doy ku am sa programme wax ko sénégalais boo amul programme demal nga toogi yooyu ñuy wax ay waxu tàppale la bi may nekk fële li ma gën a métti ci communiqué bi nga xam ne ñaari président yi génne woon na ko du le fait ñu wax nañu def li lañu def fii mais le fekk ñu dugalal leen dugal leen ci débat boobu naan y a des gens qui manipulent les jeunes sénégalais yu ne ñu ne leen dañuy reporter seen élection ñu ne d'accorduñu sénégalais yëpp jóg sénégalais yooyu jógoon contre Abdou Diouf ci jamonoom jógoon contre Abdoulaye ci jamonoom nga ne ñooñu dafa am ñu ne seen gannaaw di leen financé ay terrorisme ak yooyu nañu respecté sénégalais yi j'ai beaucoup de respect pour ces anciens présidents mais waruñu leen dugal sax ci yenn yi il faut ñu respecter peuple sénégalais bi dafa mature egg fi mu war a egg xam li mu war a xam di choisir ses combats kon nañu concentré wu ci l'essentiel le plus grand danger qui guette le Sénégal aujourd'hui s'appelle Amadou Ba te jàpp na lépp alal moo koy def may interpeller encore une fois président Macky Sall parce que responsabilité am la ndax schéma bi ñu teg ngir bëgg a def li ñu def ñun xam nañu schéma bi ñu teg pour ngoonu élection bi ñu gaawante ne gagné nañu à tel score gars yi génn FDS yi ñu ne. parce que élection bu ñu xasee ba ñuy joxe nañu score rek ñun ñëpp xam nañu c'est très difficile c'est en amont qu'on règle ces questions là te responsabilité am la moom mooy président de kon désormais nous avons un seul adversaire ñëpp xam nañ ni su élection yi jaaree yoon mënul am quinze pour cent ci réew mi. mënu ko am. monsieur le président la république. moo tax il va falloir qu'on fasse un large front un barrage contre ce qui se trame bi incha dañ koy gagné di ngeen dégg président Bassirou Diomaye Faye le jour de l'élection est au premier tour ma daane nag damay bañ nag duma candidat bi damaa bëri wax <laughs> waaye dama leen amoon ma daanelee ci war a daaneel ndax version français bi sax ma ko def damay bàyyi président wax fi may daanelee mooy ci candidat bi xam ngeen affaire politique dafa doy waar ñun ñëpp ay nit lañ kese léeg-léeg kenn ku ne ci ñun am ay seytaaneem muy sa xalaat muy ay nit yu ñëw di wax ay être humain la ñu dong nag di nga nekk situation yoo xam ne waaye est-ce que wóor na ma joxe lii nguur kenn du ko dénkaane ndangam li ñu di ñëw di wax ko defee soo wéetee ne auzu billaahi mina sheytaani rek parce que bu ko may rek nga gis sa bopp li ma def man noon na tombe ci Birame Souleye Diop mi wala ci Abbas Fall mi wala ci Maymouna Dieye wala ci Cheikh Tidiane Dieye wala ci keneen ak keneen doyen Habib si mii dafa ñëw seet si ma la seule fois bu mu jot a ñëw ma seedeel ko ni c'est un de mission à son que dafa dafa ma seet ñu waxtaan ma ne ko bu dee yàlla nattuñu natt nañu amuñu candidat passif mën na doon nga doon candidat bi mais ce pour ceci et ceci et cela mu ndax bu soobee yàlla noonu naa koy defee te boobu ba léegi saa su ma buggee dara ci moom su ma ko nee léegi léegi moo mag foofu mun na nekk sama baay waaye lu ma ko wax mu defee ko noonu c'est un homme de mission ma seedee ko noonee laa koy seedee docteur Cheikh Tidiane Dièye bi nga xam ne